Leewtoo TV di leen nuyu te di leen jaajëfal bu baax di am contentement janoog yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi mooy di leen indi li gën a fës ci bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu ma fekk wala daal di ñëw ki leen di a fës mooy nuyu naa jërëjëf Ndeye Mbacke ñu ngi lay xëy di nuyu bu baax a baax suñu mbokki internautes yëpp yi ñuy topp di Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal weeru kooru jàmm di ni bii rek woor ko ci weer bi yàlla su borom nangu te fu la ñu ko barke Seydina mais Mbacke fay naa la di nuyu Baye Babacar di nuyu internet Leewtoo TV dëkk jàkkaarloo ñoom pour indi leen bi gën a fas si yéen kay mercredi mai 2021 journal suñu lamb moo xëyee ci xëtëm mu njëkk Modou Lo Ama Baldé du 25 décembre incha allah journal suñu lamb nag doon xëy di samp laaj mooy Seydou Nicolay ba réussir son korom dina weer Mbaye Babacar. Euh, Serigne boobu le combat di combat ba nga xam ne moom la tuddee combat royal combat bi bokk ci combat yi gën a neex ci saison bi. di dox ci diggante Ama Baldé ak euh, Modou Lo Serigne Fallou Luc Nicolaï taxawal ko tey suñu làmb xëy samp ab laaj mu ne est-ce que lii Fallou Luc Nicolaï dana réussir boobule cadeau nga xamante ne bii moom la jagleel amateur yi war a am le 25 décembre. mais Babacar semaine bu bële génn la lig lig ni ko lay dem CNG régulariser combat boobu war a am ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo le 25 décembre. tournoi suñu laa mën a xëy interroger wu ne est euh, lig ni dina réussir euh, événement boobu waaye nag lig ni ko lay na di réussir événement ndax bu ñu fàttalee moom moo fi a def ay feux d'artifice ci combat ñu ngi fàttali combat Modou Lo ak Ama Baldé bi xewoon ci euh, combat bi mu taal ay jeu d'artifice amateur yëpp rafetlu lu lu ko moom fi également njëkk wàcc ci yasaar ak hélicoptère loolu lépp ay innovation yu mu tàmm di defal animateur amateur yi la te yaakaar naa cette fois ci également promettre na ne d'ici cinquante ans li mu war a def ci combat boobu beneen euh, promoteur du ko def donc daal ñu ngi xaar mu def lu koy encore une fois. muy promoteur bu bëri feem promoteur bu mën bis moo xam tuddee que le promoteur des grands événements moom suñu farlu ñu ko laaj dans le tuyau depuis 2019 quel promoteur pour monter le combat Gris Bordeaux le Tigre de Fass et le Lac numéro promoteur mu ne ban promoteur mooy taxawal boobu les combats di war a dox ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak euh, Gris Bordeaux di combat ba nga xam ne wax nga ko depuis 2019 amateurs yi ñu ngi koy coow te di ko bàyyi xel. tey suñu làmb ne ban promoteur boo ko fas yéenee taxawal wante gi Lac euh, de Lac de Guiers 2 dafa euh, wax ci journal bi nee na coow li moo fi nekk rek wax jee fi nekk rek wante Gris Bordeaux xam na kan mooy Lac de Guiers numéro de ba tax na tey buñ ko joxoon sama avance bu ko jël en tout cas Mbaye Babacar moo ngeen pare noonu pour le combat boobu ndax kii di Pathé Sylla mi nga xam ne nii mooy coordonnateur moo moo ngeen events buy tëgg moom nee na moom pare na pour tëgg combat boobu bu ñaari mbër yi euh, waxtaan nañ ba jubóog ñoom te li ñu proposé raisonnable na rek ñoom pare nañ pour tëgg ko comme ni nga ko waxee nag Lac 2 moom mi ngi artu Gris Bordeaux nee na Gris nanguwul euh, wala amul fit en tout cas euh, kii di Khalifa Dia di manager général Fass Ndakaaru ak Moustapha Gueye mi nga xam ne nii moom mooy coach adjoint bu Fass Ndakaaru ñoom ñaar ñoom pare nan pour jël avance Lac bu logique la waaye waa fa euh, Tapha Gueye daane na fa kii di Batika daane na fa Babacar Diallo ak Papa Sow euh, donc Gris Bordeaux war na jël avance moom pour arrêter. ak ah, Moustapha Gueye ko. Jordan Amanekh kii di Modou Gueye Events ñu daal di koy duppee le sauveur des douze heures moo taxawal boobu la combat moom moo taxawal yooyu la combat moom moo gét ñoo ñooñu mu tëgg nag ku nekk xam ne ne ci ay jafe-jafe la ñu jógee ndey mbàkke di ay mbër ya nga xam ne booy xool seen combat ñu mujj yi. defet lañ ci jëli moo gën nag ñëw tëgg leen ngir ñu génn ci saako yi asan insha allah loolu bu ñu jàkkaarloo dana leer. dëgg la Baye Babacar sept grand combat la moo ngeen tëggandoo war ko defal war ko dalal la vingt août bu tëgg na Jordan ak doomu Dangu Cobra 2 ak euh, kii di euh, Amaneex wala kii di. Euh, Cobra 2 ak Bara Ndiaye ci tonnerre mobile 2 Alaaji Mbay Boucher ak Liiru Jaan Wulli lii lépp la moo tëgg par war ko tëgg le 22 août loolu tax nag euh, affiche yi ñu gis ci Lac Rose Zarko Jordan nag ama ñi ñëpp ay défaite lañ jógee te ça fait des années wala des saisons amuñu combat mu revenir leen loolu tax journal suñu la am ne est-ce que du moo gént moom mooy euh, le sauveur des losers am na lu mën a demee rek fa ñëwee baax na ndax mbër yooyu toogoon Tchad de retour aux États-Unis et prévient mondial dama koy xamal nag mooy ba mu demee États-Unis xeex bay baax kon la fa jàngi woon. xeex la fa jàngi woon moom Tchad euh, bu boy bambara nee na mondial na nga waajal sa bopp bu baax a baax ndax su ma jàkkaarloog yow du ma la may dara foo taxaw rek dinaa la fa fekk dina ko timbax ba mu dal xeex. puissance mobilité jaat def na préparation yëpp ci États-Unis moom nag dafa dem na fa six mois ndax depuis mois de novembre dafa fa moom dimanche bi passé nag la ñëw dikk jàkkaarloog suñu laamu séq ak mu waxtaan lépp xam leen ne nee na pare na pour jëflanteeg Modja Modja euh, jël combat bi pour daanu donc combat bu fulaal la nee victoire rek la ci gis te euh, wax na également ci Boy Bambara bi nga xam ne lii dafa génn àdduna ci ginnaawam nee na li mu fas mooy le jour ci mu sargal ko bu gañee Mod euh, Modja def benn sargalu Boy Bambara ndax carrière am yëpp moo ko ci doon jàppale. ndeysaan. macha allah. Paa rescapé moom mi muy xamal suñu làmb rek loolu métti woon na loolu il fallait nga nekk góor gu dëgër pour mën cee génn bay dafa ñëwaat ci jaar jaaram ci bi nga xamante ne bii mi ngi doon dem Espagne jaare ko nag ci gaal yi ñu koy tudde Barça wala Barcelone ñu naan ko mbëkk mi ñëw nag andi ci ay leeral yu bëree bëri nee na traversé boobu nekk na traversé ba nga xam ne góor yàlla dëgg dëgg dëgg moo ci mën a dugg. ngir mën cee génn wante tamit ñëwaat na ne tey fee ca Espagne bëri na ay mbër yu fa nekk ya nga xamante ne bii ñu bëri dellu si waat Sénégal rek la ñu bëgg. dëgg la may Ba Pacha mi ngi nekk écurie Bombardier bu Mbour moom nag dafa demoon ci gaal gi. Euh, li mu fa doon dund rek la waxtaan ak euh, suñu laam nee na xaw ma ne góor pour nga mën a dund loolu moom demoon na ba àgg nee na waaye moom moo décidé ñëwaat ndax dafa namoon mu mënul woon toog foofu sans mu bëre loolu tax mu décidé ñëwaat ba mu ñëwee nag nee pare na pour euh, ñëwaat ci arène bi di xaar nag promoteur yi ku ko tëggal combat rek moom fas yéene na génn ci arène bi pour bëriwaat. 3 millions pour honorer Matar Ba ndéwénal ki nga xamante ne moo Jax moo ko daal di fee ca Fatick le 16 mai incha allah bay mooy muy ndewenal bu doon ba nga xamante ne bii euh, Jax mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci tëgg ay lutte simple moo koy fas yéene tëgg le 16 mai foofu ci Fatick. fas yéene cee delloo njukkal monsieur le ministre Matar Ba incha bu ci yàlla àndee muy double XL di amee fële ca Fatick incha allah. dëgg la Mbaye Babacar loolu mi ngi am après Korité ki war a animé nag moom mooy Mbaye Ngoune ak euh, Momo Ngom comme comme d'habitude waaye li ci neex moom mooy Matar Ba dafa euh, jël gala bi def ko entrée gratuite xam naa dafa jënd billet yi donc le 16 à Fatick euh, mise 3 millions Jax ak Matar Ba war a ci delloo njukkal kii di Matar Ba entrée gratuite lay nekk ndax euh, amateurs yi kon donc mën nañ ñëw sans que ñu indaale dara zéro franc dikk euh, seetaan seen làmb bu ñibbiwaat ci jàmm. loolu ndewenal ndewenal ndewenal lu mag la ko moo leen dubbee ko double XL. double XL macha allah dana neex incha allah. Malaw Seras sort du bois et réclame prêt contre ki nga xamante ne mooy Modou Anta bu Thiès ak bu Ligue numéro 2 Baye Babacar. Malaw Seras bu écrit Pikine Falaye Baldé moo yëkkati yooyu la kàddu. moom nag euh, yëkkati na kàddoom ci journal bi nee na moom bëgg na jàkkaarloo kii di Modou Anta ak ki nga xamante ni bii moom mooy euh, wulli de kun ko ci jox bu jëlee avance am na koy xëndi. Modou Anta la gën a teg euh, bëtam ndax Diène Kaïré la mujj bëreel. Diène Kaïré moom moo daane woon kii di Malaw Seras le 12 février 2017 comme nag Diène Kaïré daane na ko daane Modou Anta léegi mu ne kon nan la jox Modou Anta pour mu mën a jëflanteeg moom nee na bu am Modou Anta pare na également pour jàkkaarloo kii di Wuli 2 moom nee na mi ngi préparé bu baax a baax a baax ay entraînement am ay supporters am ñu ngi koy laaj à chaque fois kañ lay génn bëri looloo tax daal instant yi ngi yëglu nee na pare na promoteur bu pare rek moom pare na pour euh, tëgal la euh, bëreel la ci combat wala adversaire boo ko ndaa bañu kenn bu dul genre rek Paul la. Mhm. mu ngi doon nag beneen gala bi am ca Fatick ki ñu cee sargal nag mooy Mayendeb le 15 mai incha allah may baabu ñi tëgg loolu mooy fans club lutte traditionnel bi nekk foofu ca Fatick Assane fas yéene delloo njukkal suñu yaay maye ndeb di woykatu làmb ba nga xamante ne bi macha allah bu mosaanee def ci làmb rek amateur yi kontaan wante mbër yi seen yaram tàng képp ku nekk ci làmb ji yëg ne woykat bu mag a ngi ci làmb ji loolu le 15 mai lay am fële ca Fatick bu ci yàlla ànde dëgg la Mbaye Babacar maye ndeb ñëpp xam ko ci woyu làmb mais mu jël retraite nag depuis waaye comme euh, ay mag da ko mu xaw a tawat looloo tax waa fans club bi traditionnel bu Thiès fas yéene tëgg gala bi le 15 pour delloo ko ci njukkal waaye également luñ ci jëlee ñu jéem ko ko jox mu fajoo ko ndax dafa xaw a feebar yi. te noonu nag après 4 ans passé à l'extérieur ki di Zarko foofu ca Espagne wëññeeku na nag si na ndakaaru di waajal kombaam ak ki nga xamante ne bii moom mooy Baye Mandione. te bàyyi te moom gën tëgg ko borom na lamb yi tàkk moom nee na pare na ci côté yëpp incha allah te àndaale na bagage yi nga xamante ne bii heure bu jàkkaarloo bàyyi ma ñoon bàyyi ma ñoon dina xam ne lépp dëgg la. samedi bi ñu génn la Zarco ak si Sénégal ginnaaw bi mu defee ñeenti at Espagne donc gëj na fi. moom nag euh, Zarko comme ni nga ko waxee moo ngeen tëgal ko combat moom ak Baye Mandione combat boobu war a am le 22 août euh, Zarko donc ñëw Sénégal pour préparer combat boobu xam naa ñëw pour euh, contact ak waa Grand Yoff mbooloo pour que le jour J mu war a nekk en forme ba mën a jëflante ak Baye Mandione. Leewtoo point net nag la muy xamle mooy kii di Leewtoo production mu ngi tëgg lutte fee ca lutte jour Korité ak lendemain Korité Mbaye Babacar. incha allah bu ci yàlla àndee muy événement bi nga xamante ne bii lutte traditionnelle la muy bëre ba nga xam ne amul dóor muy am jour Korité ak bu ñu Korité ba ca ëllëg sa day faatu Adama Jali fas yéene ko way ak kafal bu jilaas mu nekk événement ba nga xamante ne bii amateurs yi nekk côté boobu yëpp mën nañ cee mën nañ koo xaar ñu tegal fa mbalee Assane un million cinq cent mille. dëgg la comme ni nga ko waxee comme ginnaaw dem nañ Joal jógee fa dem. ndangaan samp Leewtoo TV nag mi ngi jëm le jour et le lendemain di Korité euh, lul CSM mu nekk gala boo xam ne ni 1 million 500 dañ fa teg comme ni nga ko waxee Ndeye Mbaye Babacar Ndeye Fatou Adama Jëli ak Kafaal Fall ñoo koy animé donc ñuy xaar waa lul CSM ñëpp ñu ñëw fekkandoo Korité bi ensemble feete ko euh, dundu làmb woy ak euh, ambiance làmb yëpp le jour yi incha allah. mu nar a doon déwénal bu dul foofu tamit ca lul CSM incha allah. incha allah muy noonu dañu ma bokkaloon plateau bi loolu moo a fas ci bokk xibaar yi may la jaajëfal la Assane Wallo technique bi ñu àndaloon yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen dig dañu ba ak jàmm yàlla yàlla dolli jàmm suñu réew def ko ci àdduna bi yëpp. Assane Wallo. Ndeye Mbacke di la remercier di remercier Mbaye suba ak jàmm loolu la ñu defaan dara tàggatoo ak yéen di leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet di am contentement jënd ak yéen chaque jour damay remercier bi rek Fama kontaan naa ci yow loolu Yacine Fall bég ci yow maa ngi kontaan ci yow loolu loolu Kébé sama lonkoo ki nga xam ne mooy moom moo kontaan naa ci na fi dégg naa ci yow sama séeréer bu rafet na dama koy nuyu bu baax moom sama xeese booy bi ah Diouf ñu ko bàyyi kontaan naa ci lool loolu loolu matu plaignante bi bu bég ci yow noonu laa defee daal tàggatoo